vision.com la crédibilité notre credo. Sénévision.com. world ni Togo. kumpa deux tonnes de sucre 500 kilos de tandarma mom la dal di jaglel militant yi ak sympathisant yi paré ci parti réew ci Touba jëf ji mu ko amal ñaari fan ci weeru koor atum 2022 jilé ki amal lu ni mel di mohamed Cissé nek responsable politique parti réew ci Touba nek it membre du secrétariat national bu parti réew ba ci sok di xam ne jëf ji dal doxna na dañ ko ci féliciter en tant que acteur politique taxaway yu mel ni dafa am solo ci jamono yi ñu nekkee ci weeru koor loolu nak ñaax la bo xamni tay tey képp koo xam ne dëkk gédé wala nga dëkk ci département bi xamni mohamed Cissé c'est quelqu'un bo xamni wax dëgg yàlla kuñ jar a bàyyi xel la ndax it bari na ño xamni yor nañ seen alal di politique ñu ko def seen poste tey ñu ni salaamaaleykum ci weeru koor ñaari fan kuy dimbale heure bii jàpp naa ne mooy heureu ndimbal Modou Sall nay leer di xamle ne li Mouhamed Cissé di def ci askan wi lépp de alali boppam la du lu ko kenn jox kon nag jaadu na ku mel ni ñu dooleel ko ba tax na ñoom dañoo fa yéene takku ba dëgër topp ci ginnaawam ngir jàppale ko responsable des jeunesses féminines mi ngi nii taxaw le secrétaire administratif mi ngi nii taxaw parti bi bii mu bokk nekk membre secrétariat lu am ci parti bi fii ci département bi xam na ko xam na responsable bu ne fu mu nekk ñun keneen ñoruñu ki ñu ñor mooy ki nekk ci département bi tey jëriñ département mais ki nekk particulièrement ci biir Touba tey jëriñ waa Touba bu fekkee joxuñ ko dërëm muy liggéey ci ñàkk boppam di ko def ci doomu aadama yi cib dëkk kooku dafay jaadu luñ man ci jàppale ko ñu jàppale ko koo xeex ñu xeex la ku ko jàppale ñu jàppale la loolu pour ñëpp xam ko nekkuñ fi di théâtre nekkuñ fi di dajale ay nit di wax te duñ jëf wax ak jëf dafa bokkut am na ñoo xam ne dañuy wax ba seen ñeex saf te duñu def dara dajale yi nit nag naan dama leen di jox nangam te joxu leen ñaari salaamaaleykum loolu nit ñi nañ yeewu te xàmmee nit ñi nañ xàmmee ñeenu saakoy dugub ak ñeenu saakoy xetax Mouhamed yéen wut saakoy xetax saakoy dugub la yenu te da koo ñi nga xam ne ñoom la nekkal loolu mooy dëgg ñun lii ñuy def nii dañ koy def ngir dëkk bi mais dañ koy def ngir militants yi ak responsable yi Mohamed nag li ko ko jaral mu di ko def ku ko Mohamed jaral defal ni moom ku ko jëralut nag bu boobaa ñu taxaw face ak yow Mohamed ku ko jàpp ñu jàpp la ku ko bàyyi ñu bàyyi la du guleet tey mu di ko def def na ko ay at bañ xamé mohammed ba légui ñetti at a ngi chaque année muy koor muy tabaski muy magal day génn ci posam diko jox militants yi ak responsable yi ak sympathisant yi ak ñi néew doole kon koku lañ soxlu fi ci dëkk bi. ren ji di ñetteel bi yoon muy amal acte bu nu mel mom mohammed Cissé ñi ngi ko doon amalé ci kërëm gi nekk ci Touba ak Guédé. ak la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo